ñuy naa ñëpp tey ci samedi bi ñu xëy ndoog yéen ci li nga xam ni moo di mbas mi nga xam ni ñu nekk ci askan sunu gaal ñëpp dañoo bëgg koo mbas laa la wax yooyo bu ñu ubbee bi li yéene kaay di wóyo ci turu Thiès Info moom ci jëmi boppam ma ngay fësal ak di xam leen ni tey Sénégal laa la wax xëy na ci treize nouveaux cas laa ilaaha illallaah le ministre de la santé et de l'action sociale laa la wax moo ko déclaré tey ci samedi bi waaye nag ci jooju la jamono bu fukk ak ñett duggee fukk ak ñoom ñooñee ñoom itam génn nañ laa la wax wér nañu de ah na moom moo tane démb de nga ne ala comme na téeméer ak juróom la wax gàcce nga la maa les médecins bi laay war nañ leen a tàccu nga ne ma na nañ bàyyi ba ci kanam yooyu yoo Sénégal feelu ko ni ma nag fi mu toll Sénégal ci jëmmi boppam laa am na téeméer ak ñaar fukk ak ñett yoo xamante ni ñoo feebar ñoom la top topp di leen seet di leen lijjanti ngir nu mën a wér ba dellu ca seen njaboot waaw waaw loolee jàmm ji de ñàq rek tiis ak waarok jaaxle gi nga xam ni moom la waa Louga loo nekkee commerçant bi nee naa la fi mu toll nii boobi la commerçant mbas mi nga xamante ni moom moo dal ci kawam laa la wax te teelu koo xam fi mu toll nii nag lor na fa daanaka kal toll ci 17 ak moom muy 18 looy looy loolu Thiès Eveni xawma kutul tiit waaye waa Louga loo moom fi fi mu toll nii ñoom ñëpp a ngi ci guddi gi bët setagu laa la wax tiit jaaxle jom mi kay yooyo Sénégal set ni ma affaire ba fi mu toll nii ma nga ca Louga de ma ni mu nii affaire ba set fa wecc wecc wecc wecc wecc laa la wax ak Cees kay ew eh, samba fa mu fës kay mooy ca Ndakaaru njaajal jal laa la wax ak fa nga xamante ni moo di Louga loo ma ne la nag jeex ga nga xamante ni jeex na ko Touba laa la wax tax ba ki nga xam ne mooy docteur Amadou Dieng di wax waa Touba ni leen na ngeen gën a vigilant nag ngir yàlla na ngeen gën a vigilant ewaay eh, no samba nanu fexe fexe lijjanti ba affaire bi daal du fi duggaat kon daal affaire bi nekkatul Touba wooy leeral la nga xam ne moom la indiwaat teg ko lii nag musiba la laa la wax ëpp law 39 Sénégalais laa la wax déjà décédé pulaw nga ne ma ay waay waxal jàmm waaye inaari raxaway ne rajo xool 39 sénégalais yooyu yee nga xamante ne ñoom ñoo faatu laa wax ci coronavirus bi <laughs> waa yow le président de l'horizon laa wax moom moo génn fësal ko waxal ko laa la wax fële ci RFM moom nee na day Amadou Ba laa la wax le ministre des affaires étrangères moom chiffre bi mu génne laa wax nombre bi mu génne wax ko askan sunu gaal mel nag àggul ca lim ba lépp lépp laa wax trente-neuf yu décédé fële ca l'île de France ay la xëy ñun ay ñun ak corona états-unis ni set laa wax ci ay doomi Sénégal ñàkk nañ seen bakkan ay waayooy ñaar ñu nekk ci bu grave cay ubbil yéene kaay bi di leeral da nga gis ñu dem yow ba du seetoo leeral taxaw ñun ba fa nga xam ni moo di Medina Medina ci jëmmi boppam laa la wax 33 personnes la ñu yóbbu quarantaine laay lay la laa nga ni ma maaleykum bi foofaat kenn ko fa de oh tey lii moo yow Ndakaaru Njaay nga deene du ñu yegg ci tëj marché laa la wax ak yi nga xamante ni ñooy commerce yi non essentiel yi maanaam commerce yi nga xamante ni du tee nit ñi lekk du tee nit ñi naan eh waay la sàmm naka noonu nag Macky Sall ci jëmmi boppam laa la wax président de la la ma moom déglu ma la wax leeral six mille tonnes de denrées eh, pour soixante neuf milliards la wax eh waaye na Samba loolee nag fa mu jëm waaxu wuti fa du lenn lu dul ci ñi nga xam ni mooy néew gi doole yi nan ci gaaw jot moo gën a wóor ay eh, nag wax ja leeral leeral ko de ba mu leer nangi laa wax sans limite li ma aw ma ci benn limite li ma la wax noonu la demee nañu xam ne nag ndimbal loolee eh, borom état si moo munu ko de dee dee dee dee dee am ba géej laa la wax moomuñu ndimbal la ndimbal la ña ko moom mooy néew gi doole yi moo gën a wóor ñu dem yée yée na ma nag am na ko joxe som bu mag de am na na ko joxe sam bu rëy rëy am na ko joxe som bu rëy ma ko sombo lu mu mu ne ma quinze milliards lay lay la la quinze milliards yooyu yée la ko tax a jóg laa la wax mooy xeex bi nga ni ma maa la ko ma ko joxe nag mooy waa bowaat tekkil ma loolu tekkil ma loolu banque ouest africain de développement eh way no samba kenn du yéen ba tey rek yéene kaay bi di sanli bi ma bu ñoom daam amaar duggee ca kaso ba ndax Fatou Hiba Thiam Gueye ka nga xam ni nag fi mu toll nii moo bëgg ni poulet génn ca kaso ba eh, Maam i iseeg moo mais la mu bëgg mooy sukkandiku ci li nga xam ni moo di wàllum coronavirus bi laa la wax ngir am la nga xam ni moo di liberté provisoire <laughs> kon ginnaaw Seydina Fall bu Angeli mi nga xam ne ay avocat am bëgg nan mu am liberté provisoire ci coronavirus bi laa la wax Diop Isaac itam noona e bu ci sori jàllal eral ni ma waaw waaw la nga xam ni moom laay dëggal di ko leeral mooy maître El Hadj Diouf mii e way do samba dafa ñëw ni Seydina Fall bu Angeli laa la wax mësta déposer demande de liberté provisoire nga ne ma <laughs> ñu dem fa ñuy jéem te di leen fa tàggoo kay mooy fa sunu gaal 24 ñëw ak ñun fële nga xamante ni mooy ci dëkk boobee di Kédougou waaw dëkk boobee di Kédougou dugg la fa xew laa lay tegal nii déglu ma wax la ko. ngay tey rek man mi koy gis kay maa la ko mën a wax. ay ca la nga xam ni moo xew ca kee dugg benn waay laa la wax benn waay moo génnoon rek. liggéey ñëw fekk ndey saan ki nga xamante ni moo di soxna am. waaw David Dansokho mi Sunugal 24 nee na ma dafa ñëw fekk soxnaam ak beneen waay laala la wax. ñu nekkal ko ca nga ne ma ñu ne ca <laughs> ne mbir ma ñoom di amal seen balaxal ma daa ay ay nit ñi tal coronavirus yow nga tal loolu waa ji nag nu mu def ah nu mu def xanaa daal di mettre kaaw kay loolu keneen it da nga koy kaaw duma ci sori foofu laa leen di tàggoo ba subaak jàmm siy laatiir bu baaxee rek bësal clavier ñu dem caakin coof bi coronavirus bi tàmbaleeg léegi askanu sunu gaal kenn ku nekk ci ñoom di jóg di jëfee fa nga xamante ni foofee nga mane waaye itam di jëfee fa nga xam ni foofu la sa doole yem ñenn ñi ci askanu sunu gaal sax ñoom ñi nga xamante ni la lañ jëfee mooy dem ca li leen yàlla wërsëgalee ci seen am-am di wàllum koom di xaalis ñu daal di koy jël teg ko ci taabal ji ngir dimbalee ko ñi nga xamante ni ñoom la mbir mi dal waaye tem néew gi doole yi. waaye ci naka noonu ñenn ci askanu sunu gaal jàpp ni xëy na ndimbal loolu yi ñenn rek ñoo ko war a def muy ñi nga xamante ni ñoom ñooy borom daraja yi maanaam am ay koppar lool. moo ne buñ ko waxee noonu rek defee ko noonu dina am ñenn ci ñoo xamante ni ci askanu sunu gaal mbir mi da leen di xaw a ñoom ñooñi nag nim leen di yéemee te jaaxal leen mooy boo demee ci seeni compte bancaire amuñu sax daanaka loo xam ni moom la ñuy mën a jëfandikoo bay tibb laa la wax di jox askanu sunu gaal ci naka noonu nag am ci ay jeunes yoo xamante ni dañoo engagé wu lool lool lool waaye te mbëgg seenum réew yooyu les jeunes nag am na ci ñoo xamante ni dañuy wër ci mbedd yi di def ay sensibilisation yu am solo ngir daan coronavirus bi ci googu fànn nag am na ci ñoo xamante ni itam te ña ngay yëngatu waaye la ñuy yëngatu taxu ko foor lool ñenn ñi ñenn ñi ci mel ni ay tailleur ñoom li nga xamante ni moom la ñu def mooy comme li jeune tailleur bii daal di def téer bi nag mi ngi woy ci turu Laxat yi moom Laxat Gueye ci jëmi boppam nag la mu daal di def du lenn lu dul la fexe góorgóorlu ñu lijjanti ñox-ñoxe ci li nga xam ni moo di xam-xamam bi mu man te tee ko xam-xamam bi mu jàng xam bi mu jàng te man ko lool waaye itam di ko jëfee muy ñaw moom Laxat Gueye nag daal di ñaw lu toll ci téeméeri masque masque yoo xamante ni boo ko takkee mën na la mu muccal ci mbas mii di wuyoo ci turu coronavirus covid 19 yooyu la masque sax ñu ngi xamal ni waaye itam di ñu fësal ni mën nañ ko fóot ba mu set ginnaaw boo ko fóotee ba noppi tamit mën nga koo takkaat heure bu tilimee nga dindi fóot ak eau de javel takkaat que yooyu nga xamante ni laxat giy defar na ko demul benn yoon fenn di ko fa defaree waaye ci sunu réew mii la toog defar ko muy ci atelier am waaye itam ci ay propre machine am gàcce ngalama laxat giy waaye ci naka noonu itam am na ci ñoo xamante ni ba tey moo xam ñuy ay soudeur wala sax di yëngatu ci geneen fa ñoom dem ñu ngi jéem di jël ay bidon vingt di koy defar li ci jéem a lijjanti ba nu mën a jël bidon vingt yi def ci ndox waaye itam buñ ci defee ndox mën koo ubbi raxasu ba set sell te dara du la te doo laal fenn loolu lépp nag di wane ni lu kenn man ku nekk ñaara ko ko dàq te nag askanu sunu gaal bu nu jël rek mbir mi daal di koy jagleel ñi nga xamante ne ñoom ñoo am dara jaa ñi nga xamante ne ñoom ñoo yor ay koppaax kon nag ku nekk ci ñun rek nee naa la li nga doon ak loo mën a doon ak koo mën a doon ak foo mën a ne ak loo mën a am ak loo mën a yor foo mën a toll ak lu mën di doon war nga mën a ànd ci li nga xam ni moo di xeex bi nga xam xam ni gaañu ñu ngi koy xeex mbër mi mbër mi gaaw na bari na doole soxor na te mën naa dóor mën a bëri loola leen rek moo la ciy muccël la muy ya bañ koo jigee ba tey rek ñi nga xamante ni itam ñoo jóg di ci def li nga xam ni foofee la ñu manee muy yenn ci woykat yi nekk ci askanu sunu gaal rawatina woykat yi nga xamante ni ñoo dëkk ci ceeskaay benn dëkk ñaari gaar ñoom woykat yi jël nañ dajale seen doole dajale li nga xamante ni moo di seen idée seen xel ñoom itam ñu fexee fexe fexe yi ba génn benn son bu ñuy tuddee sot soto mi la mbas buñ ko sot soto rek mu daal di jóg ci askanu sunu gaal moom kay li nga xam ni ñoo ngi koy ñaan mooy mbas mi jóg ci askanu sunu gaal ba faaw waaye itam gaa ñi wolof njaay day faral ni wax ni fagaru moo gën faju kon nag bu nu góorgóorloo rek fagaru xëy na mbas mi du daal nanu set te nag ñu jéem a sàmmante bu baax a baax ak sart yi nga xamante ni moom la nguur gi euh, teg ci taable ji muy di toog sunu kër yi ginnaaw bu vingt jotee ba six heures man de damaa xamul ana lan la nga war a wut ci mbedd mi lan nga war a def ci mbedd mi ba mu war a tax nga ciy loru ba ciy loree waaye itam di ci sonal ñi nga xamante ne ñoom ñooy sa entourage ndax tey jii képp koo xamante ni ramas nañ la wala ñu jàpp la ci couvre bi say mbokk ñooy ñëw am na ci sax ñoo xamante ni dañuy dem ba di leen fayloo xale yooyu yi nga xamante ni léeg-léeg ñu ngi leen di jàpp di leen fayloo ay koppar waaw di leen tegi daan ku ci nekk ci ñoom daanaka téeméer boo reeree sax amoo ko ka nga xam ni moo la koy fayal di sa waajurul imagineel la coono boobu nga jël ko teg ko sa bopp fanaan ci ay yoo fanaan ci tàngoor boo watuwul sax dinañ la torturer mbala ñu duma la ay liif ba nga ni waali ba noppi say waajur daal di dikkaat fayaat ñu soog laa libéré balaa caag balaa ngay def loolu balaa ngay sonal say waajur balaa ngay am problème di leen yóbbee problème ñoom ñi nga xamante ni ñoo di waajur ngalla sama xarit ngalla sama waay ngalla sama doom ngalla sama rakk ji ngalla sama mag toogal sa kër recherchez vous mooy li nga xamante ni moo na mën a ci mille mbaas kon gars yi toog ci kër yi moo gën a wóor nanu sell masque waxuma la takk waaye nañu dëkk ak moom fu nu jëm ànd ak moom buñ ko defee rek kaa yi di ay transmission communautaire yàlla suñu borom bi subhaanahu wa taala mi dara tawul mën leen cee muccal fal damel la woon ci kàddu gi di leen jox Thank you.